mbokki internet yu TNM TV dal la nag jàmm ci tënkum xibaar yi ci bés bile tey di àllarba yama ko fukki fa ak juróom ñett ci weeru janvier ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñett xibaar yi nag dañu koy dooree ak jàpp bi nga xamante ni daal nañ koy amal ci kaw Mor Talla ñu gën koo xamee ci turu Nit Doff rappeur bile nga xamante ni nag jamono ji waa sûreté urbaine ñoo ko daal di jàpp ci àllarba ji yama ko fukki fan ak juróom ñett ci weeru janvier ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xamante libération moo ko daal di euh, baaxee ñi nga xamante ne mooy askan bi ñi di waa seen web daal koy euh, jëlaat rapport activiste bi nag daal dinañ koy yóbbu ci commissariat central foofee nag nga xamante ni mooy sûreté euh, urbaine noonu ne nag arrestation bi nag ci bëri nag daanaka andiwuñ ci ay leeral daanaka daan ci ñëwaat ci bu gën a yaatu leneen si li ñuy wax mu jëm ci procès Adji Sarr ku Ousmane Sonko njiital parti Pastef nag jamono ji ñuy wax gën doyen des juges mi nga xamante daal dinay def loolu la ñu duppee ab ordonnance de renvoi daal di yóbbu euh, mbir mi foofee ca chambre criminelle ñoom nag jàpp na ni jamono ji àtte rek faaw mu am ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ndax mbirum viol bi daanaka rek luñ ci sàkku mooy mu leer ci bopp ñëpp nee na nag lañ ko xamle ci subaak léegi noonu nag nañu jàpp ni procès Adji Sarr Ousmane Sonko dina am waaye nag li jëm ci wàllu date bi daanaka waxaguñ ci dara lu leer ñu wax nag jamono ji ci livre bu jur coow ci Sénégal muy bi bi nga xamante ni moom la taskatu xibaar bi di Cheikh Yérim Seck daal di eh, bind moom mi nga xamante sax gëjoon nañ ko dégg ci espace eh, médiatique bi moom Cheikh Yérim Seck nag daal di génne livre duppeeko Macky face à l'histoire noonu nag livre mu daal di si nag tudd ñu bëri rawatina njiital parti bi di Ousmane Sonko ba nga xamante ne nag eh, yegg na fu ni ji Ousmane Sonko tontu na ko te boo moyul dina ko daal di bindal ab citation direct ngir mu dem wuy ji njoon ci li mu wax keneen ki nga xamante ni nay gis boppam ci livre bi muy ex capitaine euh, Touré moom nag jamono yi itamit dafay daal di rek porter plainte kii di Cheikh Yérim Seck ndax da ko tudd ci livre bi ci ay kaddu yoo xamante ni moom capitaine Touré euh, ex capitaine bu gendarmerie jàpp na ni amul a benn yoon ñu jeexale ko ci wàllu transport ci Sénégal mu mel ni rek am na ñoo xamante ni ci transporteurs yi daal di nañu jëmmal grève bi nga xamante ne addu woon nañ ci ni ki démb ak léegi muy mel ni rek fii ci Ndakaaru moom mi daanaka xaw ci boobee jamono kii di Mansour fay moom mi nga xamante ni ñoom lañ dënk wàllu tali ci Sénégal ak wàllu transport terrestre moom nag la mu xamle mooy palaasam gi mu ne fas yéene wu ci benn yoon daal di jógee lu rek mën a wéyal mission bi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina ko koy dénk moom mag Macky Sall Mansour Faye nag moo daal di xam ne ni di mel ci janoom ak ay testatu xibaar nit ki démb fii ci Ndakaaru mi wax ni nag transporteurs yi nañu daal di rek tënku ci yile mesure ndax fas yéene ci itamit daal di dellu ginnaaw benn yoon ndax wéyal ko rek mooy accident yi ak li ñuy daal di gis jamono ji ci réew mi mu daal di a benn yoon wala rek mu wàññeeku. noonu rek laay daal di jaar di leen jox dig daje ci yeneen jotaay xibaar fii ci TNM TV.